mama la jabdu bax malik buñ la né nitu yalla la kenn du ko wérante serigne babakar diouf imam tafsir mor diouf mo wax ci lamiñam mu dugg sama nop ma nga ca deug yalla yalla doli ay leram nee ma ci lamiñam bay mi ak soxna mariama sek maa yor sama kurus di wéetal saa borom ba guddi gi màggat yàlla won ma nasru muy barab bii ndox mi bal xéwal baawaan ma xëy ànd ak yoro mbeng ak waaja jaañ dem Tiwaawan fekk fa mam alaa jabdu ni ko dama bëgg ay pàkk fa Cees ay kër ne mu jël téléphone am woo gouverneur gouverneur ni ko na ñëw ma may ko fukki pàkk ak ñaar ne ma ñëw gouverneur ni ma dinaa la may fukki pàkk ak ñaar Grand Sanding ma ne ko foofu taxu jóg mu ni ma fii dëkk bi jëm ma ne ko soxlawu ma foofu nee na ko ndekati yoo booba du muurum jëmm ji toog muurum sëñ la mu ñëw sant ko tudde ko nasru minallahi billahi bu ko tudde woon nasru te toog fa dimbalul kenn koo fa fekk da koy weddi waaye ñamuy dimbalee nga toog di ko xaar bëti gars yi dañuy xong cur ñu fàttu ci kër gi bala ñëw génn mu weex kon imam yow bi nga waxee rek lamat mat billahi dama laa wax ne la cër bii joxuloo ko moom sëñ Asan sëñ Modou Kara noo ngi lay nuyu Mbàkke joxoo ko ko sëñ Souleymane Seck noo ngi lay nuyu joxoo ko ko ab cër la bu ko yàlla jox kon sowul ba ci ko ni sama xol sedd na ñun suñu xol day sedd ndax yaa tax nu daje fi yaay imaam yi jàkka ji jàkka ji la ñu ubbi wax naa la léegi ni la bi mbooloo mi dajee nga jàpp loxo sëñ Asan sëñ Asan dañ la doxal ci kanam ndax yaay jiite kon sëb cëre yaa ko moom bin la nangulee nag lan nu nangul kon yàlla na la yàgg nangul te yàlla boo jamuj dafa am loo xam ne su amee nan sant nasuru ku fekkewul ab sanc doo xam neexitu dëkk xëyul xëy rek mel nii waaye moom moo nuy wax ci làmmiñam saa boo duggee nasuru lii ma lay wax daje woog taalibe Sëñ Asan bu yor kurus baye boo nga fay say bor xam ne repp nga billaahi ñoo ngi nii ku ci amul kurus amul douze mille salaatu ala nabi la ñuy dox boo naafilaa ba noppi def istixfar 1947 teg ca ya nga teg ak yeneen ak yeneen loolu lan fa nekkee mu wax nu ci làmmiñam ni saa bàyyi nee na turu yàlla yàppu xëbb la foo ko ubbi ñebbee ko ne leen ci seen kursi rek lu ma soxla dina ma fekk si fii daaxakante wax dëgg nee na garabu xaye ngi nii xaye nga ca wàll ak dex Kaya pun na xëy waaye xëy gën te xëy ku lekk sa avance xaaju guddi la koy jël waaye bu jant fenkee dina la ko delloo sëriñ bi yàlla na nga fi gën a te gën a wér morgay gàcc ngaalaama da ngaa dem kër Amadou tabax fa juma ñu ni suba la nga man Ablaye Touré ak mbokk mi waaja Amar muduma Amar waaw bi ma ñëwee moo doon ma Amar ni ma tegg loxo ni ma loo kër Amadou ma ni ko dara kon ci koy waxtaan ma ni ko Mor Gueye man Mor ma fi indi de kër Amadou xaw ma fa dara Mor mi muy indi ci rajo bii daal ñoo dafa naan fii ci RTS ci moom lay waxtaan. waa kër Amadou na bu nu bëggee ko waxtaan kër Amadou nan dem wuti ko xam man xaw ma leen sëñ moor mii laa xam. yal na yàlla dool see caranga li nga ci def boo ëllëgee bu la audité ku la xam dinañ ko jàpp yal na yàlla dool see caranga li ñuy lim sëñ Modou Kara Mbacke Balaye sa limalun ko kenn ku sa jëm ji ndax sa maam lislaam da koo lu ne kon suñ demee tey ba ubbi jàkk nga fekke ko sa alala bataaxal la lemal def sa jiba moom danga koy seede rek ëllëg waaye doonul loo xam ne nii lu kii la déedéet kon yàlla na la fi yàlla gën a yàggal moor bu saw fan guddee di nga dégg leneen wax naa la léegi ni la sa kër laa jóge ba ma ñëwee sa waajur laa fekk ca werandaawa wax ngeen dëgg de moom moo ma wax sa waajur ni ma sa baay ba mu may jëndal kuur ga ca marché bu mag ñaar téeméer mor koo yóbbaale fa may liggéeyale yàlla kuur ñaar téeméer kuur gu mag di ko yóbbu ca dàgga ja di ko yóbbu ca waluwa booba du tey wax nañ dëgg yow li nga wax ni ku sa baay tibbal cere bu sa yaay këppee sam ñeex doo jëfandikoo loolu dëgg la kër ma sàmb sanc 1960 la sant Baye dem gana ji Baye Malick Guèye Baye Malick Guèye génn ay néegam waajuru sa waajur jox sant Baye mu dëkke ak njabootam ku fekkewul ab sanc doo xam neexutu dëkk dana yàgg te dana neex ndax kala ko waajal du fii kon sëriñ bi dog boobu ngeen wax na ko ñëpp def te xam ni moom mi leen koy defal lii nag dama ko ci doon ni sëriñ bi demi liggéey juma ji di bënn teenam bi, di fa def dara man dama wax ma dégg man moo ma moo ma wax te ma ngi nii rajo laa yor lu ngeen yor te nangu leen koo joxe ngir yàlla damay ñaan sax ngeen bañ am man lu ma yor naa ko joxe ngir moom mii su ngeen dee tudd yàlla na ko seen làmmiñ yi yëg su ngeen koy rekool ak di ko si jootal na ko seen cër yi yëg ci loolu la ñuy soññ kon sëriñ bi wax dëgg yàlla imaam su ngeen defee délégation dëkk ak moom ci gox bii fii ne bu néewoon wub sàccee fii mbaa nasru kenn ku ne da ngay génn ko yet kon su ñu bilee yàlla lu toll nii na ko sëriñ bi yëg dëkk bi yëg ko ñëpp ñëw lii moo di coddi hmm? wa anna al masajida fala tadon kon yëfi yàlla la kon noo ngi lay ñaanal yàlla na nga yàgg jiite te ku jiite yàlla na ko yàlla nangul mu ngi delluwaat di santaat yàlla bu baax di julli ci alayhi salaam di ñaan ci yàlla jotaay bi yàlla bu muy sunu mujj jotaay yàlla nañ ko yàlla defal muy jotaayu defaru waahiran wa baatinan di nuyuwaat nag kilifa yiñ fi fekkoon yépp ak yiñ fi bokkoon nekkal waaye nag di ziyaare di ñaan di gërëm di ñaanal Serigne Hassan gis nga gox bi nasru la ko tudd isa jaa nasrullahi wal fatxu wal fatxu wa raayta annaasa وينك يدخلون في الدين لا افاجا بنبينك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا دق بقلن خمو بقلن كراو موكت ميوخ سرنجا سن بومي وخ maa xam boobu pàkk bi barab bii ni mu mel ndax garab bu fi nee rek bu ma yóbboo moytuwul yéeg naa ko bàcc ci màngo bala ma dagg ci gis nga fii ñu toog nii fii tool ngóor lañ ko tudde woon nun ni daan lobbal sunu waajur yi sunu yaay yi fii lañ ko daan taxade ñu daan ko wax tool ngóor ay aloom a ngi woon fii ci sunu ginnaaw ñetti aloom moom mi bi muy sanc nasru gii booba fekk na booba ay ñàngoor ak co ku fi jaar ñu dogale la silaani tubaab yi rek moo fi nekkoon ma ne ay ñàngoor ak co ak i till ñoo fi dëkkoon fii mu ñëw toj àll bépp leeral ko def fi nag nasru cheikh yaa wax dëgg moom yamul ci tudde ko nasru rekk waaye moom day naasir dimbale jaam yi ak xettali jaam yi moom la ko fi yàlla xamal ne yàlla du juum gox bii ku ko xamoon dëkk bii wàcc fi sëriñ Assane mu dëkk fi tudde dëkk bii Nasru ak noonu ñi ko xamoon démb armel yi ne woon fii ci boor bii ak yeneen ak yeneen tey mu mel nii waaye Nasru la damay wax nii dama dégg ñuy wax naan mustarshidin wala mustarshidaat kii ba mu nekkee da ngay xool xale bu am ñetti at ñetti at daanaka ferul ci juróom ñu xoñ ci ko jox ko ko balaa dégg juróom benn at nekk xaafisul quran bi muy laata dëkk fii ndawi dëkk bi ku ci nekk amoo woon xamoo woon looy bañ mosoo xam loo war a ran euh, euh, euh, moytu waaye bi mu dikkee ndaw yëpp ku ci nekk am nga loo jomb la nga jombo nag jomboo ko kenn du dé dégg bañ sëriñ Assane sëriñ ci njombte kon yow yaay naasir yaa dundal koñ bi yaa gungal dundal gox bi yaa jàppale jaam yi yaa dundal fuqaraa uy wal masaakin jàkka ji nag Ibrahima Sarr juumuñu moog waa jàkka ji biñ jëlee lu toll ni jàkka ji tere la la ko bisub tey bii fa tabaarakalaaw juumuñu da ngeen doon làmbatu waaye daj ngeen ma ñëw ci sama doom di sama rakk di sama jarbaat nag alaaji Mor Gueye Mële moor daf ma yorol sama doom wone ko ba àddina bi yépp gis ko àddina bi yëpp xam ko tey ji soxla bu am bu ko waay dëkkee taxawee waree taxawe sam xel dina dem ci euh, euh, xaadim si balaa ngaa dem ci moor te lépp moor la moor jërëjëf xam nga jàngale bala ngaa mën jàngale napp bala ngaa maye jën da ngay jàngale napp yow koo ànd rek tekki na koo làngool rek koo langal tekki na te nag lëng nga sa bokk yépp te lëngoowoo leen yàlla la yàlla doole suturaal na la yàlla doole taxaw sëñ Xasan jërëjëf yow la ma waxoon ci njàlbeen rek la ndax nag ñoo bokk meen may sa magi doomi ndey xaqan wallahi alazim nee naa leen réew mii ku ko ci jige gën a jige amul ndax meen nag mooy mbokk te may mbokkam may magam waaye gàcc ngàllaama liggéey bu tol nii ku ko liggéey fii jumaa ji tey ji ku ko doon évaluer te am na ñoo xam ñi demoon ne man tey jii seen étage yi bopp lañ gën a mën a euh, xinte liggéeyal yàlla lu tol nii waaye bi gay laata am néeg bu nit bu gan mën a dugg fekk na liggéeyal nga yàlla néeg bu gan gan gu ñu mën a wax ni gan nga bi ngay bi a laata am néegam foo ko mën a terale teral defar nga néegu yàlla ba noppi ba ñepp ni eskay nga sogotal sa dere jëf ñu ngi gërëm mbolom yépp dinyanak di sant mbolom yépp di ñaan nak sunu jotaay bi lay murum julit yépp Sulaiman Sek Seck jëf yow ku wax Souleymane na yegg borom xaas yaay borom xaas defo ko sa bop de tayit ci ne ba mago fa waye sok dogu ak sa wolu yalla ak sa nango wete ak yalla motax ñepp ni suleyman sek borom khas jere jef sek yalla yalla yok sa fan ta may la wir nak yalla nga wir ci ndang lo fekkee yalla nang ko tal yalla bo jëm dara lo tele sagub cene ba nga sagub l'islam nga sagu domi soxna yep nga ndax yow yalla mo la bind ngay nit ku ñak kenya serigne Souleymane li gën a jafe ci doomi soxna moom moom la doon amul genn kiñaan bu demee toog ak doomi soxna yi day wax seeni mbaax seeni teraanga ba fàtte boppam te kenn demul nag mu des jërëjëf Seck yàlla yàlla yokk sa sutura yàlla yàlla dolli sa teraanga jërëjëf bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin suma salaatu wasalaam ala rasulillah الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الواحد الاحد الحمد لله الذي لم يتخس صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من لسل وكبره تكبيرا الحمد لله على كل حال الحمد لله حق حمدي ثم الصلاة والسلام على رسول الله dafa mel ni imam bu ma jiitalee nuyu la te nuyu mbooloo mi siyaare la siyaare ñëpp maa ngi jiital Cheikh Ahmadou Karami moom sëñ mu Cheikh Moustapha Absa nga xam ni jàpp naa ni taawi borom dër yi fi ne moo ci mag ndax ku boole kër sa awa balla ak kër sa wut awa balla moo ne ca bopp ni ko Cheikh Souleymane Seck waxe rek a fi amee ku ne ci réew mi dégg nga ko xam nga ko waaye daa boole noppeek jëf dafa mel ni bande mund yi man fees rek ñu upp ko ñu koy jariñoo rek a xam lam saf waaye du yënguwul bu yënguwul rek mu yéeme nit ñëpp toll ba yëngu toll na ko ëpp waaye dañ ko tarbiye nag loolu moom ñëpp ko xam ci àdduna bi man yéem na ma man wolof dafay wax ni li yëngu la ko yëngal ko ëpp doole te li yëngu moom moo ko yëngal kon moo leen ëpp doole waaye kenn du gis Seex Mustafaa ab sa tukkiwut gane jiwut waxut te mooy régler lépp Seex Ahmadu Kara mii ngay wax léppam mooma mooy sëriñam te Kara ko nañu koy dégg fu ne te Mustafaa kenn du ko dégg fenn loolu rek doy na sëkk sa jur yow référence la l'islam bépp nag tol ni mu tol boot li mu boot ci as bi tamit ba noppi ni pat kooku leneen la ku yoroon li mu yor rek ñu dégg la waaye maa ngi ñëpp a ci yem nag kenn du ni sëñ bi fii la gane ji tey bu weesoo tool yaa kër gaa jàkka ja man de dégguma fenn ni tey jii nga nu sëñ ma sëñ ma sawaab say barab sàngam bariwul te ku ne xam ne li mu boot bu dee mbooloo rek ku boole ñaari kër yi yéef leen loolu doy na sëkk moo tax dama mos a wax sëñ Maodo si ma laaj Abdou yal na yàlla dolli ko wér dama mos a wax bi ne bis ne ko yéen am ngeen problème loolu tax man ko ni seen bàyyi mel alaaj Abdu hmm. lu yàqu ci réew yi mu defar ko juróom fukki at ak nangam daanaka wala lu ko manqué tuuti di defar kër yépp kenn du dégg mu wax lu dul noona nekk xalif général di Tijaan wàcce boppam ku mu li xaamalul ci këri diine yi amut nekk sa ginnaaw te mag la mag ñëpp ba noppi nu nga ko topp ci ginnaaw ñëpp su ñëpp doo ko defoon loolu moom ku ne xam na ko ku mu a dem sa kër mat na la mag bu dee ñeneen ñi mat na leen bàyyi ñenn ñi maam waaye bu fekkee ngay xalifa sa ginaaw lay topp di wax ni dama naan maani ngir bëgg moo ni dañ ci ak nee nañu noonu la daan waxee wax ci man abdou maani loolu la daan wax pour jël responsabilité bu demee ci kër kër kilifa diine ma ne ko ko ku muy sa bàyyi soo mënta wax lu baax yow booy boo muuma te noppi ndax loo wax leen rek tas dëkk bi loolu la ko loolu leen daal mu ngi lay siyaar bu baax a baax di siyaar Cheikh Souleymane mi nga xam ni ni mu wax na demee laataa dara xew sama xaritu bopp la yàlla xam na loolu muy lu ñuy yëgante ci biir mu dog cee boole ànd way jur yi dog cee boole nag loolu nga xam ni gars yi jiñ nañ kooku tamuy daw xaas ci <laughs> waaw suñu mor li muy santaane moom mi ngi ci poosam bi bu denc li laaj Pape si wax ci yow rek barke nañ daje fi kër laaj am nañ jigéen ma bi xalifa bi nelawee yal na ko yàlla dool dolli leer si Abdul Asis am na feneen bu yàggut fu fu ma dem fu baax rek fekk naa ko fa waaw kër sëñ Mbàkke Fall boo demee ca Tijaani fekk ko boo demee ca Muride fekk ko fa boo demee ca Xaari fekk boo demee foo ne fekk ko fa nag moo nekk baax mooy ñàkk ki ñan te li ñu tardel moy man li la te afa ngay loola day fek ngay julit ba pare damay wax fi toujours ni cheikh souleyman ñaka doon mourid du bàkkaar déedéet du bakkar ñaka doon tidiane du bakkar ñaka doon khadir du bakkar ñaka doon layen du bakkar ñaka doon julit moy bakkar yoy yep ñak koron don toxto don biifar te ñooñu doomi di manam doomi diine lañ rek l'islam keppe seen bay ñoom ñep mo jur ñep waye li ñu réeral moy ku melni man nga xani bu dee tarixa nga japp tarix bi nga bi nga nekk sax gëmoko yaay dal dal ci ge ci ka ca des dafa am kilifa gu baax seen sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy yal na yàlla dooli ko leer dafa wax ni sama sëriñ a gën ci sëriñ si ab dof rek koy wax xamul tax mbàkke ku li nga tànn la gënal wax dëgg nooy tànn la gënal ba noppi dina mu leen di ko gën ah ki tànn murit murit a gën ki tànn tijaan tijaan a gën waaw nooy tànnee ba noppi ni li nga tànn nu ngi leen di ko gën kon nek defe naan sama serigne gan Imam dofa ko Imam imaam dafa am ñaar ma siyaare Basir mi ba nopi di la ndokkeel wet ci lislaam baykat bu mag barab bang ni sama wet di nuyu sarak ju ji seigne Abdoulaat nga wax seigne Mbacke diko siar ak kilifi fi nek yeb day yag nu jegal ma ma lu ma doon wax sax ba ñu ko. Iliman Iliman mi dafa am dafa am mbaat bu mu yëkkati léegi. tudd ci sama tudd ci ñii ne nañ koo sagal ci jataay bi imaam dafa am ñoo xam ni ñett ñett da leen tënk waaw bu dee ñun niñ koy lakke ñi dégg wolof kilifa diine la ñuy wax bu dee wolof yi bu dee tubaab yi chef religieux la ñuy wax bu dee doomi soxna yi ñu nit yàlla su ko ñeneen dee wooyee ñeneen des ñu leen yéen doomi soxna yi maanaam dàkkantal yooyu ñu leen tegal mm. kilifa diine diine ko condamné addunaam bépp lu mu ci yëngu lu diine def na faux pas loolu rek lañ ko war a xamal ndax lu ñëpp bokk ñu santale la ko loo def lu dul gaal doo sant wa te di ca daw def nga loo war a def bu dee ki ñuy tuddee chef religieux religieuse bi ñu teg ci moom te diine mutub chef nag Hmm. yàllaay buur bi Rasulullah sax da ko ci yónni rek waaye yaa ngi moom ci yem li la ci war yow yow yow hmm. moo ci war yonent bi léeg-léeg ma laaj ko sëñ Modou ni bi julli door a xew premier jour julli doog a xew ñaata rakk lañ doon julli suba ñaar booba de minorité la hmm. majorité amul woon léegi def naa am nañu un milliard 700 wala 1 milliard 800 personnes ci jullit. Uh-huh. ñaata la ñuy julli suba. ñaar ku ko moomoon ko dul yàlla yokk. <laughs> law dëgg waaw waaw. ndax boo dañoo lambule ñuy julli bariwut rasulaay képp lam cib client. Uh-huh. képp mu ne ko jullil ma ñaar léegi 1 milliard nangam. su ko sëñ Souleymane moomoon léegi mu ne dama yokk daayira bi. daa ko am naa mbooloon foog nu dool ci 4 wala 3. jaaykat yëpp fu ñu baree mar fu ñu baree client rek yokk marchandise bi. Mhm. amul menn marchandise bu ñuy jaayee mbooloo mu bari te ne woo faa ko jëlee daa seer léegi taxi bee tax. Mhm. dégg nga kon borom képp mooy chef ki nga xam ni minorité du tax mu wàññi majorité du tax mu yokk kooku mooy chef bi kon bu ñu fekkee Cheikh Thioune mi ne koy chef réalisé. lu mu def lu lolou ñuko ko seefloo mu fonk ko def na lu mu def tuuma ji gëna a ci kaw suuf nak moy nitu yalla di nitu yalla gën ko nak ndax ki la ko jiñ tek na la fo xamni ni bis bu tam tasee rek aduna tukki di nitu yalla la baat bu rëy rëy rëy la señ mu waxtu ak mom ci ben yenn grand place rek aduna tukki ñoom ñooñu nag daa am loo xam jombewut ci ñoom hmm. fu mu dem ci ubbim jumaa ja mbaa jàkka ja jombewul ci ñett ñi ma la wax defut lu ko nag defut lu ko gënit hmm. ana sëñ ba mu nga ca jumaa mu nga ca jàkka ja mu nga ca daara ja sëñ bi mënta def lu mënta def lu ko gën Mm-hmm. amut mm-hmm. ana moom mu nga ca armeel ya mu ngay jullee néew ya mu ngay tudd doom ya mm-hmm. waaye bu ko defut lu muy def comme moom nii lañ ko tuddee chef religieux kilifa diine nitu yàlla bu defut loolu lu muy def amut léeg-léeg nga dégg ah diw de bi mu génn àdduna diw sax ñëw na ca waaye diw bu ca ñëwul fu muy ñëw. fu muy ñëw. demul fa ko. ba mel ni moom moom demul faatu moom wala dem ci armée da koo jomb. Hmm. ah sëñ Mourou Kara. ku ko mel nii yaakaar la. boo toogee nii mu toog nii bi sëñ Souleymane di wax léegi. sëñ Souleymane dafa wax ni sa taalibe bi moom bu càcce bu ñàkk solo bii te moom waxuloo loolu yaa ko wax te sëñ bi képp daf nga wax ko kat waaw su neen ba mun ñang nii tey am fu mu toll nga taxaw ca jomb na dama ko jël exemple rek nag yii ma lim léegi léegi nga xam ne xamaloo ko ca dara te it wóor na ma ne fee ngeen di tàggoo du leen doon li ma paas mën naa ko wat moom su ngeen gën kërëm kër gi jaxasoo it bu yebi do ko yëg du la ni sëñ male bi te ñëw man di moom doo ko xam hmm. te boy dem lu am def ko ndax def na ko ci señ mor mi siif na ko yët la waaw kooku bu demantee ban ni mor maanaam mun ñang toll na barab sàngam du ma wax euh, ya ca ah. waaw nga taxaw fa mënoo ci loolu fukki leexlaas ak benn loolu jombe na jombe wut moo tax fi mu ne imaam nun yow dooroo noo sant noo la war a sant ndax lu ñu def lu dul lii baaxul ñun ñëpp ñu ngi fi toog nii ni ñu toog suuf ñu naan dañuy yaakaar feneen fu nu seenoon fu dul fii def nañ mu musiba te tas nan yaakaar yi ñuy topp bu Sëñ Tuubaa di wax ñaari baat ci mayibu baatu maahil xuróora ak baatu wamhul xuróora waras nako deg di liggéeyal borom ba jakarlo ak mom khadim rasul mhm. ne yalla lima soxla tay sama audience moy ma ngi lay ñaan nga def ci man luy tax duma ma war sama taalu mhm. wax nako suñ borom ne ko defaral naa la fi jëm ba sa taalu du waru ci yow mu ne ko ma ñaan la sama taalu na ko defar ba bu ma mën a war war sa taalibe moy mu yaakar la japp ci yow lii ma jàpp ba noppi fekk cew ndul noonu te du man mukk ni ay sëñ bi te ku tudd sëñ bi ci ginnaaw mu xeex te mu wóor na ko li muy xeex du dëkk war la bu sëñ tuwaar yi bind nii yàlla xasa yow yow ndonga bi wala tu saahib xumran aw sa ruxba sëñ tuwaar ko de yéen ndonga yi laa wax ñu la bu len di and ak dof manam serigne bu dof serigne tuba ko wax bu len and ak serigne bu dof bu len and ak serigne bo xamni dafa eppal dafa bëgge ku dof moy ko xamni du def aw yoon mukk ta fuñ ko tudde nga xex dañ lay rey serigne bo xam du def mukk mukk ta fuñ ko tudde nga xex yow lega faatu waaw wala tu sahib khumran te léeg-léeg nga na sëñ boo xamni sëñ bi ci xel ngay dëkk mbaa xex mbaa xulo folal ma gaay yi rek nga nan bu len mako waxati barke sëñ bi nak ta fekk sa sëriñ bi moo jubut waxtabiri rijaala xabla suuba wala tusayir xumran aw zaaraxba isru basi taxadudin xadim tala siran wa nuuran min ilaahi xat ala واختبر الرجال قبل صوبة ولا تزيب خمرا أو ذا رخبة ndax isru بسيط تخدد خدم تلا سرا ونورا من إله قد ألا bayit bi sëñ Tuubaa ko bind te bari na lu lu lu taalibe ñi mi sëñ bee tax te bi mu demee ba gis ni jamono ji bindee bindoo la ni ñukk ñu naa doomi soxna yi ndax ñëpp ci ñoom doyatuñ ko sëñ Tuubaa wax de moo wax ni jamono nga nëlee ñëw lépp ci sëriñ sa julluhum foo xooxun sëñ Tuubaa ko bind waa kay jamono nga ñëw yoo xam ni ay fiir lañu fiiri bind waaw kenn jóg junni topp ko nu xëy ba jant so di fecce ka woy ba jant so te duñ jublu ci yàlla te du tee nga gëm ko yow te yàlla amul kilifa yàlla amul kilifa bu doon doole képp kenn ëpp ko firaw na hmm? déedéet tasawara la mujj bu dégg wilaaye dama gunu balxaam hmm. dama gunu bersis ak ñi mel ni ñoom fu ñu mujj yonent bi limi bax bax mën ta tee Abu Lahab dem sawara waaw kon nag moo tax Sëñ wax ni yow ndonga bi dama ne li ngeen di tuddee libéralisme la Sëñ Tuubaa doxal foofu yow mi jóg di wut wasiila ni da ngaa bëgg yàlla rikk waaye bala ngaa tànn kenn def ko wasiila wax tabi gëstu ko moom bu la bu la rang bu gudd dugal ci ñaan wird bu la rang bu gudd dugal ci sukk jébbulu bu la kër gu rafet dugal ci wutub sëriñ bu la bu ba kaat kaat dugal ci lool waxta bi rijaala gëstul imam saar ba xam moo la gën a ragal yàlla am ndéet moo la ëpp rakkaam ndéet moo la gën a bañ lu bonam ndéet bu ko bañee ba noppi yow mi ñëw ci moom est ce que dina la ci encouragé sëñ Tuubaa nee na nga da ko jox sa bo waaye wala wax wala tusaahib xumran bu la ànd ak koo xam day dugg ci njaaxum ñu lay duma. yow de sa taalibe yii sa njaboot gii wallaay li waa ji wax ni sa taalibe boo gis yoru course maanaam xam nga am na fi sëriñ soo xam ne lañuy def la seeni taalibe def waaye du ñu am leer sëñ bi yow mat nga sëriñaa ah, yàlla na la yàlla defal cat xam nga ngi tëj rek mu dem ndax mi ngi bëgg mi ngi mi ngi bëgg a guddi sëñ Souleymane damay wax ni aljuma ji rek ne ko borom bi dafa wax ni ko seen ci kaw suuf muy waxu alay papsi dina am ak mom audience ëllëg te di nga rendre compte xam nga yàlla wax ni wa kullum aatihi yawmal qiyaamati farda loolu moom du lu ñuy jàngale bis bu yàlla sàkk mbooloo ànd suul kenn ñibbi waaw kooku mu ñëw na farda moom ñi kooku moom du ñaar ñaar kenn kenn boobu bind moom yomb naa jàngale wa kullum aatihi yawmal qiyaamati farda lu lu junni nit bari bari bari si kasi dañuy suul bàyyi moom dong dem kooku moom ñoo moom mel na moom. boobu bind yomb naa gis. bu suñ borom di wax ni ayahsabul insana an yatruka shuda wala shude ni ngeen ko Nah baax na ndax da ngeen japp ni yeen doomu aada bi awma ci yeen soxla laaj nit ñi bis bi muy wax ni sanafruhu lakum ayuha sakhalan sanafruhu lakum ku ma mën a doon ci yéen dinaa wéete yow kese parce que dama la soxla yow ni ngay amee gan ku fëgg ngan ko may ma dama soxla imam Sarr keneen ñëw ngan ko may ma dama soxla imam Sarr keneen ñëw fëgg dama soxla imam Sarr yàlla dina ko def ku ne ci kaw suuf yaa ak moom kese muy laaj par benn te gën laa xam lépp xam nga laayeen mu nga ca bone ca bopp ca jeexlu aaya ba da ngay wax ni la yasalu insul wala jan manam duma ci lajat laajat nit ak jinne waxin la parce que halan wax ni fala nashalanna lasina ursila ilayhi wala nasal mursalin kon duma ci lajat laajat nit ak jinne déedéet mooy li lay laaj sax jaru ko won waye nak dama koy dama koy laaj pour confirmation lay indi rek bëgg sa wax ni ay yaxsabul insaan an yatruka suda moy bat bi sëñ souleyman wax kon ndonga bi bu jaxlé ci bopam ndax tiit moo xam ay bakkaar yu bari la wala lottuk aduna mbaa ko àllaaxira xamul fu mu jëm mu takk boppam ni damay wut wasiila jox ko seex si Suleymaan mii kooku day mel ne wàcc na ndax moom xam na ni yàlla nee na ko bawuma la noonu dañ daje mu wut ko ko dimbali ci yàlla ñëw jox la ngay sa wasiila nga dem fooyee ko moom nga dem fooyee ko moom te moom doona wut fu mu làqutu nga daw fooyee ko moom boobaa du musiba moo tax sëñ Blaat moo ni sëñ Tuubaa yoon ak jaam yi ba wàcc te mu ñu alaxira boo demee ci Maodo lool la wax boo demee Cene ba loolu la ñu wax feneen foo dem loolu la ñu wax menn mag mu mus digle lii xew amul sa ay jaasi ñu daggantey bopp kooka sañ naa folo nit ñi koo xam ne jaasi la daan yor ngir defal ñi diine dégg naa ci seen gàmm ngeen di wax ni isi isi isi diine nu mu ko tudd sax lam yakun falaa kaanati dunya waaw maa ngi dégg maa ngi koy dégg jàng yi dama ñëw jàng jàng ba ñu jiitlu dóor fital gi ñu ne su fekkente ni diine amatul ci àdduna maanaam dundatun ko noonu yàlla rey falaa kaanati ci dunya kooku bu ca kenn jógee ci man di wax nii c'est euh, sëriñ Ceenabaay saamaam tax lu ma def ko bu boobaa xam nga luy am na la yàlla waxoon yonent yàlla Ibrahima sëkk ya rek. dama ko waxee ni ko wa min suriyati ndax li ko yàlla térale 25 prophètes yi te nekk ci ginnaawam lu kenn xamul yàlla di ko gërëm yow ko matal nga kóolare yow ko baax nga xeet wi yëpp yaa représenté. décoré na la ibrahima bég bané yalla sama sama njabot gi nak mu ne ko ah, attention man mag la duma top topp gone ko may foyé laa yéen naa lu ahad yaa salimi magum jëmm laa am yan yàlla du ma topp gone ko may foloo lol lay tikki hmm. ibrahima dafa rouss ba delu ginaaw yari njabotam pour ñu ñëw ci géew bi ponkal mu toll yalla ko bëgg andi ci pinci mi da nga yar sa waye do rewal sa nopp ne yalla kay fekk ci leen xamul suñu dëkk yi nga yor doom mu nek ci lu ko neexul nga diko yar bokk yi naa la imam mu ñor rek gone yi nangam aduna di tukki lank leen kilifa day fulal ni mel na ñabonam mel ma fu xam maw lu ko may di nga yegg yalla dama nek yof jamalay am kilifa guñ fa don defal ñaan sama kilifa ni man na def xalwa ñu diko ko defal kilifa le ci rewmi ñeenti la ñu woon sax booba waaye fii ne dañoo garaade loolu ba du ma tudd seen i tur kenn ki moom mën naa ni doon la suñu Ndakaaru kenn ki nekk na directeur Air Afrique kenn ki c'est kilifa diine la kenn ki nekkoon na gouverneur def nañ ko ku ne loolu nga doon wut ñu dajeendoo ñoom ñeent ci sama kilifa mu jox ma sekkare ci salaatu naariya ni ma diggee ko nangam dinañ falu ca liggéey booba ñu won ma fii ci satro bi ci ngent barab bi oh. booba man dëkkuma Cees dama fi daan jaar rek jàll barab bii jox ma tur wi nasrullah won ma it ni muy mel nag ni ma fekk 2007 wan ma ñaari rëdd yi muy tëli bi xam nga li yàggu fi ak yu bari na nga dëkk fële def 6 mois nga fay def jàll dem fee wan nu barab yi fii nekk wax am wax naa koy nit laaj Pape si ni ca la bokk boo ne ma caloo ju wax naa leen ko tafsir imam Mor Diouf wax naa ko imam Mbaye juuf ci jàkkee taax kaw ca booba jamono waa moom mi ñëw na fi boobu mu nekk ab àll. waaw mu ngoog pantre boobee la bu ñuy musaa wax nan def nanga man leen tudd leen yàlla rek teenoo dem ci ki yor courant bi mu andi ko man leen bu kenn dem ci kenn ki moo may fekk fii andi ndox mi man leen bu kenn dem ci kenn noo ko indi fii ca laa leen waxe woon ne yàpp bu xob bi signalé yoon waxoon ni tur yàlla foo koy yëg liggéeyee moom yàpp bu na ba yem yàpp bu nawee foo ko def dañuy dem fa Dak tali dekk ci wóorut demal tali bi dak la yow rek hmm gis nga bi def lolu ba nguur gi fi nekkon joge fi nguur gi daanu joge ñew ni dem ba yag no no waté procès bu ngand bobu gaay ñew xal xaal bi rombu ci jug dug all bi bay biir ci fi ne ciowul ciowul sekk ak wàdd yep du biir de man ñun ñi ñoko mo hmm 40 milliards yi doon wax daa jëm jàmm gën daa jëm R100 jëmul taax kaw nun ñi leen ko ñu leen jox nun defal na ko daa wàcc xuloo ma xuloo ba nu fi ci 2007 boobu lañ ko def nag ñoom bi noppi leen meroo ku nekk dem si yoon waaye am nañu tëli gole yi sax am seen wàll lamp yaa ni ràññ loolu mooy tur waaw kay xam nga loolu la boo dee nag projet bi ñu doon tëral ma ñëw ci sëñ Mor fii dama fi am nisër waxan bi fi ñëwee keroog ba fii ñëw dama fi andal ñeenti projet mooy jumaa ak daara ak ak ay armeel ak fajukaay xanaa bi wanoon naa ko ñu bari ci ñi fi toog moo ba ñëwee daara ji lañ njëkk a def tabarkalla ñi ñep mokal nañ alquran ñi ma wër ñep imam jaa ni tok toog baytal bañ noppé sëñ saari joxe ndigal ñu def juma ci ñoo ñoo jënd suñu 22 parcel bur buur muumu ko sunu alal man benn buur musuma may dara bur buur musuma may 15 ñaar dërëm ab télé laa nañ ko teg boo léegi ñaari dërëm wala ki ñu yor kii mbasi buur mosuma koo may biñ lot see ba noppi maa ngi koy wax Malick Lom mi ak imam Basir mi toog ak noonu waa quartier bi bi jumaa ji noppee daara ji noppi dañoo war ab fajukaay waram ay armeel ku dee ñu suul la fa nit ñi mën nañoo nit li gént donte aras lañ jóge nag mbaa nu gis président bii man yomb mu nettali ko yomb na leen koor gu kenn yëgul it mën nañ koo wax boole ci sax li pour wone ko mbaa biig sama nangami rakk laa naafi la waaye liñ denc seen compte moom kenn du ko xam loo dégg nu wax ko xam na ni kenn soxlawu ko waaye lu noo xam bu noppee laaj leen ko moom dun la ni mukk yu ñu nangama ne saa poos moom day baatin ci man moo tax mosuma fekk nit ñi di wax ci moom yéen loolu ñaan ci kaw rek ndax mu xam na ne xam naa ko moom xam na ne xam na ma moo tax ñaan rek laa ko amee lu ngeen wax ci moom rek dëgg la man sama way jur ngeen la bokk ni El Hadj si wax ni ma noonu lañu demee maa ngi ñoo bokk ak sunu way jur yi nu ñëw bu fi jaxasoo maa ngi moom bu nu waxoon nan génn kees nooy ànd ah, waaw kay loolu rek ci moom waaw waaw ma ngoog waaw ndax loolu moo am kon waxtu ma toogee yéy ngeen di wax ci moom benn baat damay bég ndax deret ji bég ndax lim seq yàlla seere na lool wax naa ak wax ak keneen wax ak keneen ñaare damay wax ñoom ñi ni leen ni leen ndax man su may waxee yow ndax awma seen fi ne billaay moor mi lu ne defal na ma ko nag waaye musta xam sama soxla ñu ngi toog musuma ko di bëgg naay daal moom kay moomay dàkk waaye xamul sama soxla waaw dem këram ni ko moor bëgg naa daal mustaam waaye ay dàkk nag lu ma soxla maanaam lu ma nekk lu ne fekk na ma ci def ci lu ne loolu laa koy nawee ndax su ma doon xaar du sotti yàlla bindee man hmm. man ko dul suñ borom dama la jàpp naa ne su ma ñàkkee damay dugg sama néeg def ñaari ràkk seet lu may def man noonu laa jàpp noonu mooy mooy faj affaire hmm. waaye dem ci kenn di ko wax leen yàlla bindiwuma ko waaye terewul li muy am am am saa yu saa yu déggee ñun sëñ Assane xewle na nangam mbaa si mi ngi si nangam moom dafa may bett taal otoom ñëw. saa yu ci jëfee rek yéem na ma ndax sa du ma ko sant te looloo gën a rëy mooy def loo xam ne ki nga koy defal maanaam sant lu ko. yàlla sax boo koy jaamu xam nga jaamu yàlla ñaan ko baax na de waaye jaamu ko te bañ koo ñaan ko ëpp doole waaw. fi ne suñ borom ëllëg magasin yi day fay ñi ko bëgg ba noppi doo ko fay ñi ko bëgg leen hmm. yàlla ëllëg bala moo fay ñi ko bëgg leen day fay ñi ko bëgg ba noppi bu fayee ñi ko bëgg day ko seet ni yéen ñi ma bëgg leen nag ñëw leen lu jara xam la hmm. motax acte yi muy def dama diko deg yep neex ma dama ko ak keneen ak keneen ne ko yenn saa yi ñu xool tele gis ñuy baatre ci fecckat yeeg taaxuraankat yeeg dama ko wax ne ko yow lu yàgg yàgg yàgg bu ci dugg man man ku ma ci dëgg rek laa lay wax. yàlla dimbali ko ba li ma gëm la gëm xalaatu koo def lu dul islaam xalaatu ci dugg ndax loo rek la doon amul leneen. kër Amadou ak Tiwaawan digënté bobu la juddo su jéemoon lool rek musiba am ndax ñima gisoon ñukoy def ñëpp daan non ko ci seen ci télé muy tiitaru maa la ko wax ren diwoon dàq ko rek léegi nga gis mu yalwani ma fi rew mi tollu nga fekk ab fecc kat waaw waaw waaw kay waaw. waaw. waaw. sëñ bi loolu mooy lan. torox rek ngay mujjee ak fitna yi ëllëg. ndax ndax am bokk yoo xam ni mbaa réew moo xam ni yow yaa yëg sa bopp mais am na ñoo xam ñu ngi bëgg a dee. nga fekk ku jëmul fenn lu ne nga def ko defal ku bëgg yàlla dimbulee na nga koy moytu. xam nga inal insana la yatxa ان الانسان لا يخطا بات بوبو كان امره استخنا لول جارنا سيتات سيغ مور يالا كاي واخ ان الانسان لا يخطا يالا ني با دوب ادم لوتاخ مو لوتاخ مو ريو لوتاخ مو ريو لي ما اماكو سنيو ان راه استخنا تا خماتو لو ورا ديف بو ني با سيغ بروم بوسي كيسيون بوبو nga xamni ñor nako waye ku fatale ko fa nga déparé amna lo xon doko tal ku fi man ku ne soox nga bis waaw day ñëwaat kullu sayhin yarju ila aslihi lu way mën am di nga xey ñak doole joom am dina xey jeex xam-xam bo xey am di nga xey xëy naag comme fi nga tàmbalee fa ngay wat diggante bi na rafet motax ku bëgg yalla dimbali la fu nu wootele yalla def ca fu yàlla ne nekk ca waaye fo mi moom bu la ñëpp doon mere lànkal alal dañ koy jaamoo yàlla waaye kenn du ko fooye li gaa yi nekk di ko naafila ci jàkka yi yéen moom lañ leen sant seen alal yéen seen ñaar ràkk yi alaakubar mooy seen poos wax nga ko léegi falil foog soo saat min saa ati foo heureusement ñu ci loolu rek xam maa ngi la ciy encouragé bu baax te di la ñaanal suñu borom imaam guddal na waaye maa ngi jéggulu dama bëgg suñu noppee ba ki ci war a noppi noppi dañu julli gee doo ko dem nga jiite war waaye li ma ciy teg mooy koñ bi wax nga ko léegi buñ def jàkka ji ay armée yi ma tuddoon léegi armeel moom du bari mbooloo ku ku dee rek a fay dem jàkka jàkka dañ koy dundal te xam nga ni yonent bi ci hadis ni bokkut sax li yàlla wax wisaanoor yi salaam min yawmil jumha loolu alquran la yàlla nee na suñu xasee dégg hayya ala kenn amatul droit toog kenn amatul droit bo demee ca kaw day wax ni ku doon jaay bayil ku doon togg bayil ku doon def nangam bayil te dem julli wa tarakuka khaima ngeen xam ne xul ma indallah khairun min arisq te wa min tijara wala khairu rasikhin lu ngeen jaay yalla len ko pulé xam nga ubbi jaaka yomb na gisoon ni yalla bu yalla bu fekk nak li yëpp ci non sax ay gandam di nga xam ne bu ñu jógee jàkka ja fay kon de boobu na graw loolu hmm. bu fekkee ñu fi ay gàndanu fi yomb nanu lool de jege jàkk te du julli jàkk mukk ak noo yomb mais ju ubbi gi xumb waaye boo léegee ca takkusaan timis ñaari nit nga fi imaam ak kenn képp mu naan fu gaa yi ne ñëwagunoo waay loolu du yab yàlla ah <laughs> nan fonk jàkk ji waa koñ bi.